mais dañu lay assistance bu baax a baax d' abord dañuy jaale promoteur mag bi jógee muy sëñ Modou Niang puisque lamb moo ñàkk la Sénégal moo ñàkk ku ne xam na ne li muy def ci lamb di koy jaale ak lamb di ko jaale njabootam yëpp di ko ñaanal moom it yàlla yërëm ko xarit àjjana ak li xew fële du Turquie ak Syrie muy kii fa am daal Syrie ak Turquie di ñaanal ñu ko génnaat yëpp yàlla yërëm ko xarit àjjana am ay gaañu gaañu yàlla wéral leen te ñaan Sénégal yàlla def ci jàmm di nuyu kër di nuyu nag assistance bi mu fekk fii mooy di ci jiital journaliste yi di ci nuyoo yi Malick Thiam di ko fekk ñoom seen bi moom di nuyu ménagère yi fekk muy sama ménagère di ménagère booy ñaam président énergie xaar yi moom fii mu àndal mooy Rock énergie ak bépp écrit bu nekk Pastel di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Pastel heure bu ñu seet suñu liggéey rawatina ma dëkk. di nuyu waa Lac Rose nekk ci nekk olof ah ñenn ñenn sud ak uh, Kër uh, di nuyu waa Yoff Cambérène Mbour Wakam Yoff ñëpp di nuyu nuyu ñuy seetaan en partout daal ku nuyu da ngay di nuyu sama fan club yi nag muy xale famille yi ah di nuyu ñëpp. di nuyu suma adversaire muy Boy Niang di ko ñaanal jàmm ñaanal ko sa di ñaan yàlla ñàlla may tal ak fekkee bis ba yéen yi ci am yàlla mootali ko incha allah di nuyu encore Makan Mbengue di ñaanal suñu papa Gaston yàlla defal ko taw feex ba mun a dellusiwaat ci njaboot bu baax waaye di ñaanal Makan li ku sumb yàlla na ko dugg ci alhamdulilah génn dugg ci bisimilah génn ba yéen yëpp ci am yëpp yàlla di nuyu. di gërëm suñu di félicité suñu yoon yi mooy champs yi coupe bi ñu jël keroog di leen félicité yàlla na leen jiw tey ci Sénégal yi gars yi dañu waxoon ne da ngaa bàyyi bëgg da ngaa nar a yor course ak Sénégal waxal ak Sénégal. da koy xaw a da koy xaw a parce que li fi jaar bari na tey corona jaar na fi dem defe naa ñaari at nga yàlla dogal ñu ne combat ba ci biir am na lu am lu woon suñu a yi lu yàlla dogal la mooy soxla ci xaw a retiré bu tuuti nekk suñu bopp nag nekk ci bopp nag day nekk kumba ci nit ñi ba lu nekk dañ ko wax mais daal ñun ñoo ngi ci lu war a nekk daal. mais man dama nekkoon man dama am benn question Malick. mooy ban parce que yaa wax léegi ne quatre ans couronne bi niñ ko jëlee waat suñ ko jëlee woon Pikine kon ak Pikine moo koy béyaat yaa ngi ko jëlee woon ci Eumeu Sène door ko mu daanu mais xale màgg na ñëwaat na mel ni Pikine la woon Pikine la Pikine la delluwaat. bala ngeen dugg ci laaj bi ngeen bàyyi bala ngeen dugg ci laaj bi ngeen bàyyi booy ñaar mu ngi woon ak bisimilah. mais mais mais moom bu toog woon fii dana nekk. donc xam nga intro la. waaw donc nuyoo na léegi ñu bàyyi euh, booy ñaar également mu nuyoo parce que aussi. am lu bëri lu mu éclaircir ndax comme je l'ai dit tantôt euh, combat bi amoon na tuuti euh, ni ma damay waxtaan a nekk lu dëgg dafa war a nekk lu xam ne Pape Sarr xam ne lépp luy ràmbale Pikine def ci nekk suba loolu bu dégg bëccëg kon tey mooy ñaaw bu jëlee combat c'est parce que c'est dicté par la marche de l'arène voulu par les promoteurs voulu également par les amateurs mais béni par Pikine looloo tax mu jël ko mooy ñaaw mooy ñaaw nga nuyoo ak askan bi nuyoo ak at micro. Yes. Salaamaaleykum. maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu suñu di nuyu suñu ay ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikh na wàllu maamin bu baax a baax a baax di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu waa kër Maam Borom Touba di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa kër Maam Alaaji Maalik di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waa kër Cheikh Abdou Khadre Jilaani maa ngi leen nuyu waa Ndiassane maa ngi leen di nuyu waa Laye kilifa diine kilifa aada yëpp ci dëkk bi maa ngi leen nuyu bu baax di jox seen wàccuwaay di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau fi ñu toog ci plateau bi assistance bi yëpp maa ngi leen nuyu njëkkee ci nuyu bi suma papa Bourkhane Wade def naa ni mooy kilifa gi moo fi mag loolu laa foog maa ngi lay nuyu bu baax di jox seen wàccuwaay di nuyu journaliste yi presse bi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu suma adversaire Modou di ko jox wàccuwaay nuyu ma kat le promoteur de la mention spéciale gis nañ taxawaay bi donc Abdoulaye Ndiaye ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu journaliste yi ku ci mel ni Lamine Samba Cheikh Sarr ñu nuyu bu baax Sow Père Malick Thiandoum Moodu maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñu ànd ak Moodu yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ma àndal muy sama école de lutte Boy Niang maa ngi leen nuyu bu baax mbër yi staff bi sama papa ne ko fi ma koy jox cëram ak wàccuwaayam ak suma yaay moom Père Xës Père Boy Selim ak ñëpp rek su ma leen may jum su ma Père Mansour Ndour maa ngi ko nuyu foofu nekk Père Paala Diop Baba Diallo jigéen ñëpp Abdou Ba mu bàyyiwul kenn comme ni nga waxee rek ñoom laa àndal moom mu metti ñu ñafe ko ba egg si fii ñu yegg donc ñu ngi sant a ni xam nga ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu jàmm rek ñu yeggale lépp ak suñu sago dafa am koo xam ne nag dafa jënd àdduna muy suma lépp mu seen joué na ay dara maa ngi koy ñëpp di ko jaale ñëpp waaw di revenir tamit ci Modou wax dafa am solo. li suñ Modou Lo ñu koy jaale Modou lamb bi yëpp waaye ku def ci lamb nga koy yokk waaye wàññiwul nga koy jaale waa Pikine di ko jaale doom jaga ñaar di jaale ñëpp di ñaan si borom xale bàjjal ñu ngi bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi ñu koy bokk ak ñoom bu baax a baax a baax jërëjëf merci beaucoup. li ma doon wax léegi rek nga accepté jël euh, Modou Lo alors que mu amoon na contrat bu doxoon digganteem ak Ama Baldé loolu aussi jar na leeral que amoon ngeen ngeen ànd waxtaan balaa ngay jël avance bu mel nii mu leer ci boppam ñëpp. waaw loolu la yàlla def ci loolu rek damay nuyu suma frère Ama Baldé di ko di ko ñaanal jàmm bu baax mu tane ak jàmm di ko ne activité bi di nuyu mbëru bi yëpp comme ni ñu koy waxee yaa wax léegi yaa leeral lépp da nga def ba ma bëlee ba pare da nga approché son papa wax ci combat bi mu wax la ñun duñ jël combat bi parce que mu ngi ci contrat Ama mu wax la aussi ñun li ñuy dugg balaa ñuy dugg dara dañuy waxtaan ak mbokku fii yëpp. parce que fii ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn moomu ko dañ ko partagé te bu ñu nekk dañuy génn kenn génnewul ak sa drapeau fu ciy génn drapeau fii ngay génn donc nag ñu naan mu drapeau bi nag mu suur xool mu arrière wala mu dellu ginnaaw dañ ciy jaayante ba fu ñu am de ñu ko waxee rek yàlla dogal na moom amoon na lu ko def ba baax bi ñu la ko suñu da yàlla def sotti waaye ñun balaa ñuy avancé dañ ci waxtaan dañu ci war a waxtaanal ñu nekk suñu yëngu wax ñu si communiqué wuñ ci ba boo gisee rek ñi nga xamante ni laa moom affaire day jàngal mel waa kër Ama Baldé ñu war leen loolu bu baax a baax parce que Ama maa moom toll nañ ci làmb foo xamante ni ñoo bokk ay adversaire damay bëri jox ko mu bëri wala mu bëri mu bëri loolu mu bëggoon sax mu nekk loo xamante ni à partir du jox intérêt ñu gi loolu la loo xam ne jarul ñu ko ñu ak sànq parce que ñu yëpp Ama yëpp dañ nekk ay mbër yoo xam ne dañoo ñëw fekk kër gi dara la ko ñu jaay ko ay si waaye ñu góorgóorlu papa yi sonn ci ñu am seen bëri ñu naan lu doon leen di tapé ñu naan ñu naan ñu naan donc lu ñu am dañ koy yóbbu suñu wala ñu koy gaañ wala ñu donc li ma amee yéene pour am lu bari ci laam noonu laa ko amee yéene ma am ko yàlla xam na donc li ma ñaan mu wér ak jàmm rek laam nag dafa nekk ba mu paree ci Balla mosuma taxaw na dañ ma jox mu bu bëri ak moom waaye yàlla rek moo ma ko indi moo war a bëri ak moom booy bëri Balla tamit amul kenn ku nekk ci laam bu xalaat ne maa ngi woon lii bëri donc laam yàlla nag bu tegee dara dañ xam loolu teg daal waaw suñu borom nag maa ngi moom mu ma indil lii moo xam ne lu ci namu daal mu yàggale ko daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf